équipement médical bu takku boole kook dernière génération moom la mairie bu Touba jébbal Touba ci kanam si poste de santé bu bees bi ñu liggéey ci ndam ñu mën cee nemmeeku ay mobilier logistique lépp lu jëm si wàllu soins généraux médecine générale ak ay consommables ñu jàpp ni équipement bi buñ ko xayma toll na si douze millions cinq cent mille francs CFA mu doon ay équipement yu ñu itteewoo loolu si wàllu paj mi ginnaaw biñ ci àndi ak ku xam-xamam màccu si wàllu wu ni mel mu tàmmul leen yi ni war a jënd mambay ñëw mooy président commission santé si maire yi bu Touba bi muy ñëw mi ngi ànd ak cabinet maire bi ñu mën seen nemeeku mam Cheikh Ka ak Madické Diaw moom jàpp na ni kat diggante Touba sa kanam ak maire yi bu Touba kenn xaju si seen dénominateur commun mooy sëriñ bi moom la ñuy liggéeyal. bu ngeen ko te def ko ngir sëñ Touba te ñu ko dëkk bi kon amee na la amel na leen ñaan waaye mu jëloon fi engagement yu wér nag wax ne ginnaaw dee nañ koy def bu noppee danaa ko équiper yàlla dogal na noppi ngeen wax ngeen ko équipement bi lañ doon indi tey équipement bi it biñ ko laataan def dañ ci jokkoo ak ki nga xam ne mooy suñ premier conseil muy médecin chef district bi docteur Ndeye Maguette Diop mu tànnal équipe yi nga xam ne li nga xam ne matériel yi nga xam ne mooy yi mujj génn yi nga xam ne moo gën a baax yi gën a jàppandi te te nga xam ne foo ko teg danañ xam ne lii ci matériel la boo xam ne bi mu jëggéenn ci la bokk bi mu ñu ko tànnalee bindu ko maire dem jënd ko indi ko ñu indil leen ko tey defe naa ñëpp gis nañ ko wàcce nañ ko teg ko ci loxol président ak président commission santé bi ak loxol chef de village bi bind nañ def des chartes wax nañ jot nañ ci kon nag yàlla nañ ko muurloo ci barkeb Serigne Touba. délégation Touba sa kanam ca booba Abdoul Fattah Guèye waaye tamit teewoon na fa mbooleem commission yi laale si wàllu wundu mel njiitub commission santé ba di Galas Ndiaye ñoom jàpp nañu ni kat matériel bi ñu fi indi de kawe na loolu seen jot ci ngëneel gi mu am si wàllu yembal service su askan wi. di wax ne matériel bi ñu ko xoolee toll na ci valeur douze million quatre cent quatre-vingt-quinze mille francs wax dëgg yàlla kawe na sunu njort bu fekkente ne bi dañoo teg fii xeer keroog ci kanamu sëñ Mamor moom Cheikh Mouhamadou Mourtala moom moo doon teg xeer bi bi ñu tegee xeer ba noppi moom monsieur le maire wax ne bis bu post bi noppee moom dina équipe ndax lii nga xam ne moom la Touba ci kanam di def compétence transférale boo xam ne commune yi ñoom ñoo ko war def kon Touba ci kanam ak commune bi benn la bu ko dee def kon commune bi bu Touba kanam euh, tabaxee ba pare moom dana ko équipé noonu mu ko waxee woon nag noonu la ko defee ba def ci lu kawe suñu njort ndax wax yàlla. Euh, man bi ñu waxee ne maire dana indi équipement yi damaa jàppoon ne comme équipement yi nga xam ne dañ koy def ci poste yemamaay yi rek la waaye yemul ci équipement médical bi waaye équipement bureautique sax def cee ànd nga xam ne lu jëm ci table yi chaise yi nga xam ne ñuy faj ci la ñu toog yooyu dañ koo dañ koo fàgguwaal ba ci nit ñi nga xam ne dañuy faju si nit nañ leen ay chaise ak ay table banc yoo xam ne bu ñëwee ci la ñu toog loolu nag wax dëgg yàlla kawe na suñu lool ba tey moom Galas Ndiaye taxawandikat ngir nag rafet rafetlu taxawaayu maire bii si Touba sa kanam si wàllub santé wàllub sociale environnement électrification ak lépp daal loolu sumb jàpp nañu ni kenn mënu ko ca. di sant bu baax nag ci jëf ji nga xam ne duñ na ci Touba ci kanam mu jóge ci commune bi Touba jaar ci loxol monsieur le maire Abdou Lahad Ka ndax kat Touba ci kanam mën nañ ne yëngoom mu ngi dooree ci tabax ay poste de santé. biñ ci njëkk a taxawal muy ba nekk fële ca Lansar keroog biñ tegee xeer bi ba noppi monsieur le maire def caa jëloon ay engagement wax ne moom Abdou Lahad Ka en tant que taalibe Sëriñ Tuubaa dana ci joxe ciment joxe na ci soixante tonnes ci lañ tàmbalee tabax boobu ba loolu àgg ñu ko ciy sant bu baax di ko ci gërëm lu jëm ci wàllu sociale Touba ci kanam it loo xam mas cee jóg heure buñ ko sollicité yëkkati na ay millions joxe ko ci Touba ca kanam biñ fi lancé assainissement jaayante ne dañuy defar ndoxum dëkk bi keroog su ma juumut yëkkati nañ lu ëpp ñaar fukki million mu jóge ci commune bi ak essence bu bari jàppalee ko Touba ca kanam fan yee bi nga xamante ne bii ñu ngi def reboisement ci boo wàccee péage bi jëm si biir Touba ñu def fa ay garabu xay yu bari bam accès daf na lépp lu jëm ci wàllu grillage yi ak li nga xam ne moom moo koy protéger commune bi jël na ko en charge loolu nag wax dëgg yàlla li muy firndeel mooy Touba ca kanam jumtukaay la boo xam ne mën nañoo wax ne ci biir mairie bi la bokk loolu da koy firndeel ndax bu fekkoonte ne bii jëfuñu loolu kon mën nañ ne à part la waaye monsieur le maire wane na ne Touba ca kanam jumtukaay la boo xam ne ci biir mairie bi la nekk kon lépp lu mu nekk mel na ne maire bi la koy defal kon nag bu fekkente ne bi dañoo teg fii xeer keroog ci kanamu sëñ Mamoor moom Cheikh Mahamadou Mourtala moom moo doon teg xeer bi bi ñu tegee xeer ba noppi moom monsieur le maire wax ne bis bu post bi noppee moom dina équipe ndax lii nga xam ne moom la Touba ci kanam di def compétence transférale boo xam ne commune yi ñoom ñoo ko war a def kon Touba ci kanam ak commune bi benn la bu ko dee def kon commune bi bu Touba kanam tabaxee ba pare moom dana ko équipé noonu mu ko waxee woon nag. noonu la ko defee ba def ci lu kawe suñu njor di fàttali nag tamit mairie bu Touba liggéey na nu juróomi poste de santé ñoom it ñu nu bu Touba sa kanam noonu la ñu fas yéene équipé seen yos jublu si rek ngir nekkinu askan wi gën a yemb